continue à abrutir les cadres sénégalais. Il continue à abrutir la jeunesse sénégalaise. Il continue à abrutir nos valeurs. Et il est en train de détruire les tissus de notre société sur la base du mensonge aujourd'hui qui est qualifié par le tribunal de Dakar par cette diffamation. Donc, vous avez suivi le processus. Il a voulu faire croire au monde entier que c'est un procès politique qui tente à le rendre éligible. Ce n'était pas notre objectif. Notre objectif, c'était de démentir d'abord ses propos. Notre objectif, c'était de prouver qu'aucun rapport ne, nous, ne peut nous être reproché. En cours de route, il a tenté de faire croire aux gens que même s'il n'y a pas de rapport, il y a eu de fautes de gestion. Mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'est pas gestionnaire des fautes de gestion. Moi, je ne suis pas gestionnaire. Je ne suis ni administrateur de crédit. Je ne suis pas le coordonnateur. Et vous osez, en tant qu'énarque, dire devant des milliers de Sénégalais et à la face du monde que nous, nous avons des problèmes Nous avons eu à commettre des fautes de gestion. Comment est-ce qu'un énarque peut accuser un ministre de détourner des fonds, mais qu'il n'a pas à sa gestion Comment est-ce qu'un inspecteur des domaines qui a fait 15 ans au ministre des Finances peut regarder un autre cadre de sa trempe et lui dire de pareilles choses Il n'y a que deux possibilités. Il est de mauvaise foi c'est un inculte, pour lui, je pense qu'il est de mauvaise foi. En refusant de produire ou même de tenter de se défendre dignement, il a fini par prouver qu'il n'avait pas de dignité. En embarquant les populations qui sont avec lui dans son propre combat, il a fini par prouver qu'il n'a pas d'honneur parce que moi, si j'entends un combat qui me lie à un autre homme, je n'ai pas besoin de manipuler ou d'appeler au secours des gens qui, pour des raisons de faiblesse, vous supportent et sont prêts à vous suivre dans vos histoires. C'est irresponsable. On pouvait ne pas en arriver à ça. Il avait la possibilité de produire le rapport à la police. On pouvait ne pas en arriver à ça il avait la possibilité de déposer le rapport durant les délais. On pouvait pas en arriver à ça. Il avait la possibilité de donner le document au tribunal à trois reprises. Mais il a opté. Il a opté encore une fois de jouer dans des détails et de jouer surtout au cinéma et de se décrédibiliser. Qui n'a pas honte aujourd'hui de parler de cette affaire De voir, moi-même j'ai honte quand on le présente comme leader de l'opposition de mon pays. Une personne qui raconte des histoires qu'un enfant de 7 ans ne pourrait pas gober, qui raconte des histoires parce que tout simplement il regarde trop de films, qui raconte des histoires parce qu'il doute de nos, capacités d'analyse, qui raconte des histoires qui pensent que c'est un messie, or qui n'a pas de valeur, il n'a pas de dignité. Et les principes qui nous régissent ici aujourd'hui, finissent par prouver qu'il ne peut absolument rien diriger parce qu'il ne peut plus témoigner sur quoi que ce soit. Je pense que, mec, moi je vous félicite. Parce qu'on a su prouver à la face du monde que ce n'était pas un procès politique. Moi je vous félicite parce qu'on a prouvé à la face du monde que c'est un menteur. Moi je vous félicite parce que le mythe qu'il constituait à savoir diffamer d'autres personnes, semer la terreur et fini. Moi, je vous félicite parce qu'aujourd'hui, nos institutions sortent honorées et fortes et renforcées de cette histoire-là. Ce n'est pas parce qu'un diffamateur, un menteur, un incapable, une personne qui ne peut plus même témoigner dans notre propre religion attaque la justice que notre justice n'est pas crédible. Ce n'est pas qu'une personne pareille attaque l'ordre des avocats que l'ordre des avocats n'est pas crédible. Ce n'est pas parce qu'une personne comme ça tente par des manipulations d'embarquer les autres ordres, à savoir les médecins, les autres magistrats et tout, dans la calomnie et la diffamation. Je suis fier d'être sénégalais parce que les institutions de mon pays sont restées debout. Je suis fier d'être sénégalais parce que la jeunesse de mon pays ne l'a pas suivi dans ces histoires de manipulation. Je suis fier d'être sénégalais parce que je suis dans un pays où la personne qui le dirige est référencée dans ce monde. Je suis fier d'être dans mon parti parce que mon leader est cité en référence dans le monde. Je suis fier d'appartenir à l'Alliance pour la République parce que les responsables qui y sont travaillent d'arrache-pied pour sauver des vies et améliorer le panier de la ménagère. Nous, on n'appelle pas les jeunes à mourir. Nous, nous n'appelons pas les jeunes à comploter. Nous, nous appelons pas les jeunes à l'insurrection parce que nous croyons en nous-mêmes. Fini ce temps où une personne pensait qu'il peut se déployer. Ça, c'est fini, ça. La deuxième manche est entamée. Nous allons faire appel. Et les ressources qui seront tirées de ça, ce n'est pas des, je rassure, les gens qui tentent de nous affaiblir avec ces histoires d'argent. Ce n'est pas des histoires d'argent. Nous allons demander le maximum parce qu'il a créé beaucoup de dégâts. Nous allons demander le maximum parce que les dégâts collatéraux sont énormes et que les personnes qui vont se partager ces montants sont nombreuses. L'argent qui sera reçu de, cette, de ce procès sera exclusivement dédié aux Tara et aux victimes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 di njëkkee nag sant yàlla sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu sant suñu njaboot sant suñu njaboot politique sam sant ñi ñu àndal ci lii ñuy am yépp ñi ñu àndal ci ñaari weer yi yépp nga xam ni pour kenn li fi xew muy suñu diggante entre ñun ku sant nag da sant ña nga àndal xeex bi di xeexu ngor xeexu dëgg xeexu njub ñun de foofu lañ ko teg ñii nga ci suñu borom booleel muy avocat yi nga xam ni muy guddi muy xalaat nga méngoo ak yoon waaye tamit ku ci nekk xalaat nga pour ñu def ko ni mu gën a méngoo suñu réew particulièrement suñu aada ak suñu ci dëgg tegu ci njub tegu ci moom mooy ñoom man du ma def comme keneen ki may xëccool damay respecté seen règle yi ngeen di fonctionné ñoom ni ñuy ni ñu leen di présenté du ordre lii ak kii mais ki gën a mag mooy jox keneen topp ci donc ñu commencé ko par maître Baboukar Cissé di avocat fii ci barreau mu Ndakaaru teg ci euh, maître Olivier Sur di avocat bâtonnier pour Paris maître Elage Diouf mon bu kenn présenté maître Ousseynou Tcham, Ousmane Tcham, avocat Petit bâtonnier Dakar Sénégal maître Baro Boudakar, Dakar maître Adam Fall mon nekk qui ki nga moo ci mooy caat bi di maître Souleymane Soumaré caat bi waaye tamit caat bu am taxawaay caat bu mat caat. maître Moustapha Dieng. maître Moustapha Dieng ak maître Ramaba tudduma leen parce que yàlla daf ma booleeg ñoom ci leneen. ay jàpp. te la gunge ca xaarul dara ci yow teg ko ci kóllëre teg ko ci relation comme li ñu seq ñu bari fii nii ba texal leen mu ñëw Rama jërëjëf Rama merci beaucoup maître Rama Ba merci beaucoup yal na la yàlla fay maître Moustapha Dieng yow mag nga ci ñun pour dooree yëf yi umpul kenn ni que dañoo xëy bés Ousmane Sonko def am na wax na lu ko njëkk ñor am na ministre bum gis démb assemblée nationale avocat yi di ko toroxal député député yi di ko toroxal ba génne rapport mu ni rapport boobu du dëgg waxul dëgg rapport boobu am na rapport bi ko épinglé rapport IGE la daal yëkkati téléphone am liir daldi ni ñun tey jaaxle bi ñu jaaxle mooy moom fan lay jële ak fan lay dence ñun tey li ñu jaaxal mooy kan moo koy jox waaye du ñemew ñoo miim parce que moom lépp tey na ko ci loxoom ah yàlla bi dara tëwul ñu dajaloo waat fii defe naa ci beneen salle bi lañ ñëw réunion ma ni leen Ousmane Sonko waxul dëgg Ousmane sonk bu waxee dëgg na génne rapport Ousmane sonk bu génnee rapport man dinaa tënk samay loxo bopp ma dem jox sama bopp yoon parce que ci biti du sama palaas boobu ba léegi li ci am bu leen neexee ñu bañ koo nettali parce que ñun ñëpp ku ci nekk seede la ci waaye wax di fàttali dafa baax wax di féddali dafa baax parce que loolu mooy taxawaayu gor loolu mooy taxawaayu nit ku baax bi ma koy def politique taxuloon ma def ko bi ma koy def utuma leneen lu dul setal sama der bi ma koy def xalaatuma leneen lu dul bañ a utal sama njaboot ak samay doom woy bu ñaaw parce que man sama woy jur utaluma woy bu ñaaw ba tey ma mën a taxaw jàkkarloo ak nit ñi wareef gi war bàyyi ci doom wareef gi war bàyyi ci kër wareef gi war bàyyi ci jabar wareef gi war mag ci ay rak wareef gi war doom ci ay way juram ci lu mu fi def wareef googu moo commandé ba lépp lu yàlla maye lépp lu yoon maye dinaa ko def pour setal sama der ku ci gis leneen ci kanam tuuti di ngeen xam ni que yàlla day àtte bi loolu amee ñu dem tribunal la fa doon am yéen ñëpp ko gis wër wërloo dàqantoo mais tey dinaa ci wax loo xam ni comme que yoon àtte na Aujourd'hui, il est établi que Ousmane Sonko fait 4. c'est établi c'est acté par un acte de droit wax biñ ko pour wax leen rek biñ ko que woo mu dit. ba mu premier jour nous avons ni le lu ko fi indi bañ ko dit que fi dem jëli firnde yi moom Ousmane Sonko mu ni nañ ko may mu dem këram jëli firnde yi te suba sa mu ñëw ñu laaj ko mu ni naam lii moo ko wax waaye sax dafa juum waa ji ne ko waa ana firnde yi mu ni firnde yi moom dafa juum ci IGE ak IGF IGF la bëggoon wax waa ji ne ko waa d'accord léegi rapport IGF bi indi ko te mi ngi yor classeur mu ne ko buñ ñu demee ba ca juge ba te moom mii sax dafe naa wax ko ni ko bu dofee bañ dem ca juge ba li koy dal dina gën a garaaw li may wax ni yëpp ci PV laaj ko wax avocat yaa ngi nii toog bu fekkee ñeme na ba am fitu dem procès dina gis dinañ wax leneen leneen yeneen wax luy dul waxi rapport daal di jël classeur am ay preuve am ak firndeem dem laaj nga laaj ko nan lañ ko cité man defuma procédure man seetal sama terrain wan askanu Sénégal ni kii fenkat bi loolu dooree mu jóge dikk ak citation bi waa këram yëguñu ko ay xaritam yëguñu ko képp kum nekkaloon yëgoo ko da ko doon nëbb ba muy dugg dikk da doon nëbbatu te doon nëbbatu di raser murs yi pour wax leen nit ki ngeen nit ki ko séqal nan la dama leen di wax firnde jour ba mu wuyu ji pour yeew yi amoon responsable parti bi mu bokk lépp lu mu ci responsable politique jour boobu yaaantu dig di jàppale ñaari député yu bokk ci ñoom yu ñu jàpp Ousmane Sonko lëmasu kaalaw nëbbatu ni kaña dugg biir dig

convocation bi muy wërloo wër ak mom bu démé siège am woo ko mu ko maa sama kër bu ñëwé kërëm muné ko maa sama siège bu ko woowee muné ko maa ngi Ziguinchor bu génné leneen lay wax ci mujj gi muné ko jox ko sama gardien mom mo wax ñu jox ko le deux mu am fitu taxaw ci sénégalais

ba yëgee am firnde ni que lii la def ak huissier ñooñ dañoo génn ci moom man de preuve laa laajoon ba tey ci waxtu wi Ousmane Sonko indiwul benn firnde buy wax ni que moom document yooyu mu téye woon lu am la léegi nag man dama gëm sama yoonu réew dama gëm kuréel yi téye sama réew dama gëm institution yi téye sama réew dama gëm république donte nag mais dama gëm république parce que ci loolu la ñu nekk ni booy jiiñ nit dangay ngay firnde ba doo ko jiiñ ba pare sax dem wuti ko nit a ngi nii koo xam ni jiiñ na ba jàmburu yaay jàmburu ni dafa luubal vingt-neuf milliards ca moom am na firnde te wóor ni ko waxam dina egg fu keneen egg loolu moo tax nit ñu mën fi gis ku mel ni kii parce que wax fa muy egg jot nañu wax fa waxam di egg fenkat la egg fa tey ba fii ñuy waxee ak yéen ñu ngi sant yàlla parce que yàlla may nañu ndam ci moom dañuy sant yàlla yàlla may nañu ñu setal suñu der yàlla may nañu bépp tuuma bu wax ci yëf yi nii yàlla wane ni que du dëgg ay waxam wane ne na di dëgg waaye tey yoon bi ñu gëm tey am na ni mu jóge nag mooy gàkkal suñu kuréel amul corps constitué bu Ousmane Sonko sagawul juge ño bokkon bokkoon ak moom classe ño bokkon ak mom école mom mo len gën juge yi baaxuñu kenn xamu ci dara kenn du ci liggéey ordre des avocats dañ koy xeex parce que dañuy suspendre ay avocats Sénégal euh bëgguñu lu jub parce que mom bu waxé dara euh euh nit ñi dañ ko wara def ndawu Sénégal da ne a irresponsable parce que léegi euh, bu leen woowee kaa ñu toj kenn du génn donc ay défaillant ngeen kooku mooy Ousmane Sonko kooku mooy Ousmane Sonko tey ngoram mayu ko mu génn wax dara justice parce que jàpp na ni que moom comme que yaakaar na ni yaakaar nag laa wax loolu dinañ ci dugg après borom xam-xam yi tamit dinañ ci dugg war na mën a présenter wu. moo tax mu tiit xamul lu muy def moom ak ñi mu àndal ak ñi mu taxaw damay wax fii tey Ousmane Sonko fenkat la ku ko wax ci dëgg nga ko teg parce que yoon àtte na ko tribunal nee na Ousmane Sonko fenkat la tey Ousmane Sonko dencalul dara yorul benn preuve ku ko wax waxoo wax nga dëgg ku ko wax juumoo tribunalu Sénégal àtte na ko tey Ousmane Sonko dégâts yi muy créer ci dëkk bi institution yi muy saaga wane na ni que lam doon wax méngoowul ak lu am weneen fenango donc suñu mbokk yi nañ delloo si xel yi nit a ngi nii koo xam ni ba fii mu egg si tey nit ñi jàpp ni egg na fu kawe bu opposition bi ñenn sax ragal per seen yoon assumer seen bopp jàpp ni que moom day gagné moom day nekk président ñu dem topp ko ba mu leen di xëcc ci lu dul dëgg jungeen jungeen parce que ay fen mënul dëgg jungeen parce que fen du mës a féete kaw dëgg doonte yéeg ba day kawe rek mais daanu bi day gën a metti Ousmane Sonko daanoom commencé na daanoom commencé na parce que tey képp kuy sénégalais xam nga ni lam daan tiitale nit ñi munu ko boobu ba léegi mi ngi woote tey képp kuy sénégalais xam ngeen ni jeunesse bi muy woo ak ñi ko topp ci coobare boppam pour yëfi boppam kese woowu leen pour réew mi jub woowu leen pour réew mi dëggu woowu leen pour defar réew mi woowu leen pour programme da leen yi woo parce que moom dafa tiit def na njombe yaakaar na ni que yoon day dal ci kaw mu def ko ñun ñoo ko gën a doon gor parce que magistrat yi muy saaga man démb man ak samay avocat ba duggee ci tribunal bi gis beneen magistrat waxuñu parce que dañoo nangu ni que fii yoon lañ ciy wax saagawul kenn tonte mënul nañoo wax parce que nous, ñoo ko mais kenn parce que dañu jox cër suñu yoon ay avocat lépp lu Les def dañ leen di jox cër ba ca war ci beneen dossier bu maître ela Hadj am na parce que nangu nañ xam nañ que ordre des avocats ils sont autonomes rappel euh, renvoi bi gëna bi mu am ci suñu procès un mois ordre des avocats moo ñëw wax ak juge bi ci affaire boo xam ni nañ ko ba pare ñu nangu kenn ñu wax parce que dañoo respecté kuréel leen suñu la leen suñu euh, la mais boppam rek mom bu juge bi àttee juge bi baaxul mais lool nak day jeex et bu defee nee ni rëcc na rëccul rëccagul de jeexul de affaire bi am na deuxième mi-temps parce que li ñuy wax lépp ay wax yu dul dëgg la dégg naa leen ñii naan non mambay li muy warante mooy police ak gendarme police ko jàpp gendarmerie jàpp ko rapport ba ci deuxième mi-temps bi donte amatul droit man may naa la droit boo indee rapport bu dul bu sax bu IGF boo indi bu wax ni que man def naa lu dul yoon sàcc naa alal askan ma dem ci kaso bi yow ñemee woo wax loolu ca boo ma ko waxee man man ma génn lu la yóbbu yow wax dëgg dafa jot ci réew mi waxante dëgg dafa jot ci réew mi naxante ak naafeq ak ragal dafa war a jóg ci réew mi benn nit mënta toog li mu def ci àddunaam yépp ci ay fen la ko sampe yow laay njëkk jël seede assemblée nationale ba ngeen nekkoon plus fort reste la fa duggee wax ji di tax yéen ñii ngeen xam ni actualité moo leen intéressé ak peut événement ak lu luy indi buzz li mu a def wax ni député fay muy ay képp kuy ay la Sénégal ñëpp xam ay mais ñi ñenn ñi rus ko wax ni que lii da ay fen la ñenn ñi ragal ni que ni ko buñ ko da dal ay la mais la commencé ci ay la commencé Ousmane Sonko ça a commencé par le mensonge et ça va se terminer par le mensonge déclaration bi bu njëkk a def bi ko nit ñi naan député bii kan la leneen la leneen la déclaration boobu mooy fii assemblée ñun moom ma nga fa inspecteur des impôts la mu ni député yi duñ fay impôt réew mi yëpp xam ne du dëkk mu jóge fa daal ni député day leen jox 10 millions mu jóge fa jiiñ bàyyu jàmburu 94 milliards mu joge fa dem négocier pour nangu donc moom addinaam lépp ci ay fen lu ko yóbbu Tay alhamdulillah, man établir naa ci dëkk ak këyitu tribunal ni ka fenkat la parce que yéen ñëpp seede ngeen mu ni rapport moo ma téye rapport boobu moom mu ni mi ngi ci loxoom mi ngi woon sax ci téléphone am ba tey jii nii génnewul rapport mais dafay wane leneen ci mbir mi ni ka jàngul wala bu jàngee tamit xamul bu xamulee tamit nit ku bon la parce que nit ku bon mooy xam dëgg xam li mën a nekk di wax safaan wax li mu njëkkoon wax moo gën a yanu maanaa ci ku jàng rapport IGE moo ma jàpp moo gën a yanu maanaa ci ku jàng parce que IGE mën na def rapport jàpp ma mais IGF mënuma jàpp parce que bokkuma ci champ d'activité te moom def na 15 ans impôt et domaine moom nee na ENA la génne moom nee na ministère des finances la bokkoon kon mënta bañ a xam loolu mënta bañ a xam loolu loolu di indi beneen firnde pour waxat ñi nga xam ni dañ koy topp te naan xaw ma mu sell mi te yàlla rek tax donte mën nañ ko def de bonne foi tey ci kàttanu yàlla am nañ firnde ne ba Ousmane Sonko du waxkatu dëgg tribunal àtte na nee na du waxkatu dëgg diine ji tax ñu topp ko ak bi tax ñenn ñi yaakaar ko nee na ku ñu mas a daan ci ñàkk wax dëgg ci kuréel lu mel ni tribunal matatoo seede ku matul seede ci lislaam matoo njiit ku matul njiit doo laaj réew mi kon donc yéen ñi koy défendre te naan yàlla moo tax waxuma nag ñu yam laxdar yu ak risaala rek bu werantee borom kii ñu jàng laa wax dem leen diine ku fen ñu établir ko kuréel dëggal ni que kii wax na dara ca fen la matatoo seede mënatoo nekk témoin ci dara diine dàq na ni yow mën ngaa seede dara tey Ousmane Sonko bu dee ci diine lañ ko teg matatul seede ku matul seede doo jiite ku mënta jiite doo jiite réew mi moom bu jàppee ni que garde na éligi éligibilité diine dàq na ni que mën naa jiite bu jàppee na ni que tuumaal baayu jàmburu jëkkëru jàmburu yaay jàmburu ba di dàqante ci ay gër di football ak naan ay dem naag demuma woo ay nit ba ay nit gaañu ci bu jàppee ni que rëcc na ci loolu garde na éligibilité gardewul ngaram donc tey Ousmane Sonko fenkat la Ousmane Sonko amatul ngor Ousmane Sonko amatul dignité foofu lañ tollu tey loolu moo tax ma sant yàlla parce que man dimbali naa sama njaboot ba setal sama der dimbali naa sama soxna samay xarit samay àndandoo samay rak ñi ma àndal ñi ma wóolu bañ xam ne que wax ji amul waaye tamit dimbali naa sama réew bañ gis ne que kii ñu yaakaar du waxkatu dëkk ak ku mën a far ci moom ak ku mën a bokk ci moom ak wàll boo bokk ci moom tey Ousmane Sonko waxul dëgg léegi nag danaa tënk tuuti jox avocat bu fekkee ni que am ngeen lu ngeen di laaj damay fàttali ni que am na ñu bari ñoo xam ni ci ci bëgg lu baax ak bëgg jàmm dañoo yaakaar ni que waroon nañ maa woo doon ay kilifa pour naan mu retirer plainte retirer lii retirer lële wallaahi du ñàkk kersa du bëgg a bon du soxor amul benn problème personnel entre man ak moom dafa di damaa war a sàmm sama der dafa di ngor ngor moo gën a foor bakkan réew mii ñu nekk avant diine di fi egsi ci ngor lañ daan àttewoo réew mii ñu nekk avant diine di fi egsi ci ngor lañ daan àtteewoo te ku jàng xam ni que bari na lu diine nangu ca ngor nanguwu ko donc ngor moo ëpp moo gën a ndaw Ousmane Sonko nag deseetu ko deseetu ko parce que ci yëfi boppam nee na ñun dañ koo bëgg a toroxal mu woo ay doomu jàmbur lu tax wootewul tey manifestation parce que jàpp na ni ko gàdd na éligibilité léegi ñi ko toppoon di ko défendre ci loolu ñooñu yaakaar ni que li mu perte moo ëpp éligibilité li mu perte mënatu ko jënd fi may daanele mooy ñun def nañ appel mooy deuxième mi moo tax ma ni jeexu beneen bi ci des dégg naa leen ñu naan xaalis xaalis yàlla dañoo teral te duñu dellu ginnaaw ci ñëw ñi ñëw doon ma laaj ndax mën naa dindi retirer sama plainte dama ne ko kooku dafa jàppoon ni man mën naa am ay problème parce que moom dafa am ay am ay capacité yu ñeneen ñi amul ma ne ko man bi may xale moo tax xale looy def ci kanamam da ko def te di fàttaliku ni ko xale ngay yar man bi may am juróom benni at 1982 loo xam ni tey te ci samay mbokk samay waajur jàpp nañ ni fàtte na fàttalu fàttalikuwuma ko 82 dañu jàpp sama papa aéroport parce que dirigeant grève la woon temps yooyu Ousseynou Seck euh, kii kii Seck ci dëkk euh, non à Assane Seck ministre ministre des télécommunications et des transports ñu jàpp un papa parce que dafa bokk ci ñu doon grève temps a boo ambulance wala moto tombe mort da ngay fëgg say ñu wax journal ni que jàpp nañ mbay syndicaliste à l'aéroport mi mu doon événement bu rëy Jurbel nit ñi di ko wax dama xamee sama maam la mu wax sama papa ca kaso ba dinaa xam ne amul dara lu gën dëkk àdduna amul dara lu gën ngor àddina amul dara lu gën maandu te dafa dem fekk ko te après la comprendre ne moom sama moom problème am yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp du doomam du du jabaram du xaritam du syndicat bi mooy yaayam nan lay gise mbir mi loolu moo nekkoon problème am sama maam egg ni ko bu fekkee dëggalatee fii deewal fii bul génn de nan fa dee ñi la wóolu ba indi buñ la wóoluwaatee deewal ci lii man ci loolu lañ ma man loolu lañ ma lu dul dëgg rek bu leneen donc loolu laa bëggoon leeral di wax ni que xaalis bi ñu ciy wax maître defe naa dinañ jël disposition yëpp pour que huissier bi bu affaire yi génnee rek ñu saisir këram xaalis bi dañuy laaj ñu yokk ko vingt neuf milliards lañ laaj dem dañuy laaj ñu yokk ko benn dërëm du dugg ci sama njaboot. benn dërëm du dugg ci ku ma wax ku yàlla wax ne que dama ko war a dimbali benn dërëm du ci dugg. tey dañu am mbégte ànd ak sunu jarbaat sunu rak di ministre de la république di jëwriñ gouvernement du Sénégal son excellence le président Macky Sall jiite. ak le premier ministre Amadou Ba suma nawle yi ko dalee ci sama xarit sama rak sama turandoo Moustapha Dieng ba ci rama nga xam ne mention spéciale la ko suma jarbaat décerné ci Olivier Sur mu jógee Paris Babacar Cissé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

yàqaale deru Macky Sall wane ni gouvernement bi ay sàcc lañu loolu ci jublu woon ndax moom bu waxee rek mu ngi seet nu mu daaneelee Macky Sall pour nu ñi gëm ni dañ fi nekk di seddoo ay milliards te du dëgg bay am fit nag génn téléphone am naan am na ay firnde ci sàcc goo xam ni Mame Mbaye moo ko sàcc waaw waaw gars yi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 mu génne benn certificat médical jour bi mu demandé renvoi mook avocat nii di ko alkaat yi jàppee noonu muy ne day taal dëkk bi ñu ne ko nii ngay jaar mu ne nii laay jaar ci góor ca wax ja moom moo ne woon amul doomu aadama bu ko mën a teree jaar fi mu bëgg a jaar fen wu rëy am na ndax fi alkaat bëggoon jaar na fa par force fenat bu rëy fen ponk la ñoonu

docteur bi ko bindaloon ni moo ko seet ci biir tribunal bi docteur boobu moo ni yee am na yu koy metti dañ ko xaw a pamti pamtee mënatul fekk bu waaye ba mu demee ci clinique bu docteur ñaa bi ni moom defal ko benn acte médical yow kuy bëgg a dee bañ laa di bëgg a dem France dañ laa empoisonné dañ la bëggoon assassiné dañ la bëggoon a rey nga nekk hôpital ay fani fan kenn laalu sa yaram aucun acte médical n'a été posé sur lui ah sa waay ñeme na feebar bu ne dañ koo empoisonné dañ koo poson beneen bi dañ ko bëggoon rey assassinat nga dem hôpital ay fani fan maa ngi yow de affaire bi kañ la woon le 16 certificat médical bi le 21 lañ ko defar certificat médical kon 16 ba 21 da doon taxaw wala wala wala wala da doon def sax ah wala danoo <laughs> waa kii di ñaa est am na ñu loolu ñoo ñu doo ñuy defar yaram yi oui oui non dugguma ci alors euh, damay wax ni liñ gis moom moo wane télé ma ni ku dee marché yaa tàggee sa bopp moo wane fa mu tëdd hôpital wane perfusion boo xam ne mënul nekk kon loolu du dara loo xam ne ñu ñëw a génne moom moo wane moo wane taxawaayam sumukaayam bu doy waar beneen bi

di lambar lambari rek di daw rek ni dëkk bi dañ ko taal yàq réew mi ndax lan waaye gars yi sénégalais yeewu leen kaay wuy si tribunal fii mbaxana nekkee benn pour indi seen firnde wane ni Mame Mbaye dafa luubal loolu jar na nga ne yéen ñëpp ñëw leen tribunal waaw looy ragal est-ce que Sénégal yëpp xañ nañ tribunal est-ce que militant Pastef yëpp xañ nañ tribunal que Yewwi Askan Wi xañ na tribunal loolu mooy dafa ñëw pour saboter tribunal pour tribunal du mu def liggéeyam xale yi taal dëkk bi waaye bu fekk fii réew mu am fulla état am fayda force de défense am fulla fayda war ko naka ni ko dëkk bi boo ko naree taal du dëkk bi ku ko naan taal ñu taal te gis na ko nag xam na sama gars yi foo ñu ah jaaral lii nga bañ ñu ne la fa kat fa kat nga nekk fay lem lemañ ñu ne la dugal fi yow mi naan gatsa gatsa léegi yegg na terminus danaa rey Macky Sall wala mu rey ma yow ñu ne dugal fii kay bu dee reykat yi yow loo fa wane maanaam bàyyi jot commandé loolu jibi waali jibi waali eh. waaye kii yàlla ko toroxal waaye nañ jàll

ndax xam na ne masul def dara ba dara boole président ne ko doo man maa nekk chef de l'état xam ci état bi masul laa ñaar dërëm ñi lay sosal leen ak yàlla waaye suñu Abdou Aziz Sy daa baax yàlla yàlla di yokk leeram nee na tuuma daa baax didi di tuuma mooy toroxal seytaane te toroxal seytaane day neex yàlla toroxal seytaane day neex sunu borom subhanahu wa taala dafa bëgg dëgg léegi gis ngeen ni waaw gis ngeen nii man mën naaw ci kaw maag sama ndaba ñooyem gis ngeen ni sa waay moom waaw gis ngeen nii enseignement yi ñu mën a génnee ci ci ci verdict bi ci procès bi yàlla yi ba ne leen bu ngeen dee xale yi seen yaay juraat dem leen dee bu ngeen dee seen yaay juraat man naa leen jaral ngeen dee yéen xale yi dof yi xale yi yeewu leen ku doon nelaw war nga yeewu ci waa ji di leen jël di leen utiliser bu leen ko nangu ndax nit ku fonkul bakkat la mu yokku ci bëgg a toroxal institution yëpp Ousmane Sonko mooy ki nga xam ni wax na ko keroog sax ci benn meeting nee na moom faalewul ay institution Macky Sall institution mu ne institution yi Macky Sall lañ waaw le président de la République dans notre système constitutionnel est la clé de voûte des institutions. C'est la première institution du pays. Et il est garant du fonctionnement régulier de toutes les institutions constitutionnelles de la République. ancien député, moi, En tant qu'ancien député, ancien ministre, je peux bien vous parler du rôle du chef de l'État. Quel est le bout de nos institutions Bani Ousmane Sonko, on a dit justice avec une institution yëpp la yemale amul benn respect justice Nous ne sommes pas magistrat bàyyiwul benn juge benn procureur loolu pour lan pour sénégalais yi foog ni ëllëg buñ ko àttee àtte bi du jaar yoon ndax dañoo far ba pare kon moom ngi préparé psychologiquement ci maynu nit ñi ëllëg buñ ko daanee teg ko ay daan mu ne noo ñii Macky Sall lañ nekkal démb bi wala na nii kat bi lu fi Macky Sall atte démb bi wane na ni lim noonu wax naan dañ koo bëgg a tere mu dem élection loolu taxul jóg juge bi ndax juge bi bi mu attee ba pare xañu ko mën dem élection présidentielle xëy na xanaa beneen atte waaye pas bii appel nag am na beneen atte lay nekk loolu yàllaa xam

ci fan yu néew tagg des avocats ak bâtonnier ndax bâtonnier moo taxoon mu am renvoi un mois lu kenn après ñu suspendre ma man Alaaji Diouf mu kontaan félicité bu baax des avocats booba bi yooyu nga xam lu dal ma ma comment yow téléphone ay ah, yow dañ laa summi yow nekkatoo avocat boo bàyyiwul Ousmane Sonko bu sell bi xamagoo lu lay daal Ousmane Sonko ku ko laal di ko gis yow dee nga ba pare loolu lañ mën a wax daa démb bi ma gisee ma sol bi ma gisee ba xam xam nga dëba keroog nee na ah affaire bi du yomb sama malaaka excellent affaire bi du war a tey yomb parce que malaaka ba léegi am nga malal ci de moom malaaka la ci réew soro na nit waaye malaaka bu nekk xam nga sa maalaam ci ku ne xam ki lay faj mu ñëw ne batoñe moo ko ordre sa avocat du ñu dara ñëw ñëpp a yem dañoo ànd ak gouvernement mais kii nit la batoñe bi nga xam ni moom du foduree moom man mii moom ak sos palandre ndax booba xalaat na li mu doon wax ci moom daa ëpp wala dafa bëri mu kontaan ci lool di ko félicité ba dañoo boobu félicité bi ñu renvoyé procès 16 février ba 16 mars ba dañoo boobu suspendre Ousseynou Fall avocat ci fanweeri avocat ak ñaar yi mu am man bi ma suspendre pour Ousmane Sonko bâtonnier baax na bi mu suspendre benn avocat bâtonnier baaxul bâtonnier daal bâtonnier Macky Sall la waaw est-ce que Ousmane Sonko nii lañ koy bàyyi gars yi waa xale bi xale bi yem na nit ñi de Sénégalais yow du ñu yeewu ci waa ji tey mu wax lii su wax leen lu ko arrangé rek bakkanam bi rek yaramam bi rek yaramam bi rek bakkan bi rek bakkan bi rek moo ko intéressé leneen ñoro ko waaw euh, dafay baax ngeen xam lu tax awakaam ñu suspendre ko yéen journaliste si ñëwoon ci salle audience yii passé gis ngeen Ousseynou Fall nim ñëwé songu juus bi xërtal ko di ko yuuxu di ko ñii sa ginnaaw cagoulé muy force de défense yi nañ fi jógee laa wax tout de suite kooku ne ko yaa may wax li am ci audience man maa moom la police de l'audience je suis le président mu ne ko bu mu dal koy wax yu bon man démb dama saaga ndey ma ne ko baal naa la mu des sama di ma daggal saaga ndeyu tàng jër jër jër jër jër ki moom boobu nekk tul avocat de suspendé nañ ko ba pare mu sol costume bu rafet toog sama gi daal di ma saaga lu ma wax ko ma dégg benn saaga ma ne ko baal naa la yàlla na la yàlla may xoli muñ merci beaucoup donc euh, ñu ngi sant ñëpp di wax ni ko maître avo maître El Hadj waxee ci turu avocat dellu sant yàlla ci jibal jibal dëkk ci kaw fen dañuy dellu sant yàlla ci incapacité tële bi Ousmane Sonko am pour taal réew mu pour genn di que def na li mu mën lépp woo ñi mu xam ñëpp woo ñi ko topp ñëpp dugal na leen ci gaal boo xam ni tan réew mi moo ko taxoon a ci kàttanu yàlla taanu la am mais ci kàttanu yàlla ñu bëggoon a ngalaam réew mi ñu bëggoon a yàq ay jumtukaay réew mi ñu amoon planification pour a réew mi ak institution yi yàlla weer fii ñu toll nii def nañ appel bu ñun rek ñoo def appel démb liir naa seen communiqué ñu man justice bi ñoom am na justice wu euh, profital la ñu ngi continuer di yàq mais ci communiqué amul kenn ku ko ci ñemee wax jàpp naa ni gor ca wax bu fekkee ni ñoom bu fekkee ni nga jàpp nañ ni nga dese nañ ay preuve yu mën a wane man am na lu ma taxal wala Ousmane Sonko lam doon seen am na sax dëgg fooy bu ci gis dañ def appel ñu ñëw appel maître moom dafa bëgg lu leer donc euh, maître li muy wax moom ñaari appel yaa ngi nii deuxième mi-temps moom faaw du am prolongation du fi am du am pour teel a yóbbu non non ñoom kay gis nañu ko parce que. c'est parce que le parquet a fait appel. waaye c'est procédural c'est mécanique. je vais leur donner la possibilité que vous répondiez à aux questions pour qu'ils puissent comprendre les procédures de droit ñii dañ ciy sonn parce que xam nañ ni que waa ji ko seqal day fekk mu dëpp ko ne la yokk ci benn zéro dina la parce que lépp lu la wax suba ba ngoon jot dara tuuti dara donc def li ma ciy ñaan nag mooy taxawaay yi def war a wuute yéen ñi ñu bokkal coalition yéen ñi ñu bokkal parti yéen ñi gëm li président de la république tey amatul sikki sàkk li nga waa ji dem ci sénégalais yi tey amatul sikki sàkk li mu ci ñoon ñi nekk ci biir ñëpp dara du ci dëkk yor ci dundee dara tey amul sikki sàkk proposé lu gën li ñu fi def ak li ñu yéene réew mi tey coalition boobu amul taxawaay bu mën a génn wax teg benn sénégalais ndax ñetti mbir laajoon nañ ay mairie mairie yañ ganee ñemeetuñ faa dem boobu la fen bu njëkk bi commencé lañ diggaate woon munuñu ko la ñu yéene woon munuñu ko lii tribunal ni que fenkat la léegi am na këyit buy wane ni que Ousmane Sonko fenkat la ci campagne bi lam campagne woon man sama campagne dama waxoon jamono jii boo ko commencé wul mooy munoo dafa diggoon waa Ziguinchor moo ne local Ousmane Sonko ENAC expert nee en droit xaw ma la économiste nee na Ziguinchor dafay doon monnaie locale Ziguinchor tey ñaari oto mbay donc pour wax leen taxawaay bi ngeen war a am ñii président àndal defuñu lu fi jar raase bi benn waay yi lañ rek muy tey di sosal nit ñi pour juróomi saako katam boo ko naree song seen bopp ñu ne noo jaru ko nit ñi di noppi waaye naa leen teg si na ci daj dëgg tey amatul marche arrière ñu ragaloon parce que dafa mën a taal dëkk mënul taal dara man dama digal Macky Sall ne ko man tant que maa ngi fii sa wet mu daaneel dëkk bi sant ma ñàkk utal bool ñu jox di sant ñàkk yëpp ak ñi sant daal ñu sant jox ko ma. lii muy def ñoo ko dàq foofu waaye bëgg réew am yéene ci réew naw ñi ñu nekkal yërëm ñi ñu nekkal moo tax am na taxawaay yoo xam ne jombale nañ ko mais bu naree yaakaaree ni que mën na menacer réew mi. billahi lazi laa ilaaha illaa dama ko mujjee waat dama ni leen billahi la si laa ilaaha illaa hu dinaa leen wan ni Ousmane Sonko fenkat la billahi wallahi taalaahi la si laa ilaaha illaa hu ci du ci contrat rapport moom amu ko waaye bu fekkee lekk naa ci beneen dërëm sax pour ci contrat ku ci yaakaar moom yarawul ma noonu sama diggante ak yàlla yàlla def na tëb bu ma tëb ci loolu moo tax ma ni que ci

Le droit de diffamer n'existe pas dans une démocratie. La volonté de brûler des biens publics n'existe pas dans une démocratie. La liberté individuelle, mes libertés individuelles ne me permettent pas quand même d'entraver les libertés d'autrui. Si arrêter de pareils actes, c'est détruire la démocratie, et je pense que nous ne voulons pas de cette démocratie. Nous ne sommes pas dans l'anarchie notre démocratie survivra à Ousmane Sonko et il est très petit, infiniment minuscule. En mathématiques, je dirais epsilon pour menacer la stabilité. D'autres plus grands, plus aptes ont tenté, ont échoué. Il est arrivé à un moment donné où peut-être certains avaient baissé ou avaient décidé de se retirer ou de s'occuper de leur famille, le travail reprend ne recule pas, on ne se rend pas, on avance. Parce qu'on ne recule pas pour servir son pays. Parce qu'on ne recule pas pour défendre les institutions de son pays. On a l'obligation morale de ne pas reculer pour préserver son pays. On a l'obligation morale de ne pas reculer, de ne pas abandonner, de ne pas abdiquer fut-il un expert en manipulation à préserver l'image de notre pays, à préserver euh, euh, les institutions de notre pays, à préserver notre façon de vivre. Parce que même notre façon de vivre est attaquée par ce menteur, diffamateur, calomniateur. C'est lui qui menace la liberté des gens. C'est lui qui affiche des photos des juges pour les menacer derrière. C'est lui qui affiche des photos d'avocat pour supposer qu'il n'a qu'à afficher ma femme. Vous savez, on se connaît. On va arriver à un stade où, si certaines personnes ne prennent pas la responsabilité, d'autres prendront la responsabilité. Nous avons combattu avant lui. Nous nous sommes donnés pour notre pays avant lui. Je rappelle aux gens que cette personne essaye de vous faire croire qu'il peut changer quoi que ce soit. Il ne peut même pas changer le fonctionnement de sa commune, la plus forte raison de notre pays. Il ne peut même pas changer le fonctionnement de sa propre vie désorganisée, débauchée totalement de Une personne qui est dans ces lignes ne peut pas embarquer notre pays. Une personne qui est dans ces lignes ne peut pas embarquer la jeunesse de notre pays on se battait le 23 juin, je rappelle que j'ai beaucoup de respect pour les deux, que ce soit ceux qui proposaient le ticket et ceux qui combattaient. C'était des générations c'était engagé à défendre des Au même moment, nous qui sommes de sa génération avons organisé le combat. Au même moment, lui qui cherchait des terrains avec un certain monsieur pour les vendre. Ce n'est pas un messie, c'est un menteur. Et d'ici peu de temps, d'autres personnes trouveront qu'il détient d'autres valeurs.

ñu bëgg a ànd ak moom te nax nit ñi naan non Sénégal démocratie Sénégal liberté Sénégal démocratie la liberté la waaye kenn amul droit saaga kenn nekk ci réew mi dañ lay jàpp kenn amul droit taal pënë parce que dañ koy tere dañ lay dañ lay jàpp ah, kenn amul droit wootee ni que kenn am na ñëpp ay avocat xam nañ li yoon maye ak li yoon tere ku yaakaar ni nga dëkk ci li yoon tere di def lu la neex fii policier ku fi wax jaaral nii noonu ngay jaar Ousmane Sonko mooy kat boobu bu policier waxee jaaral nii du ko jaar lacrymogène dafa cher étudiants yi bu ci génn ci biti bu la policier ne jaaral fii jaaroo ko du la dóor lacrymogène lépp la lay dóor jot na nag moom ñu bañ a dépensé ci mag mu ay duma moo gën bu foogee ni que fa mu egg mën na faa egg bu fekkee ni que mën na faa egg fa mu toog kenn mënatu koo kenn mënu koo jot ndax am na ku ma non moom na ah, xaw ma ñan ñaanal ko ba muy ñëw na ci saa waay mënoo lu yàlla mënul yàlla nekk nga koo xam ni bala ku ànd ak yow na xam fenkat ku ànd ak yow na xam ci ay fen la ànd ak yow réew mi bañuñu kenn jël musuma attaqué possibilité utuma musuma ut ci projet bi li nga mën nga bañ a mën a fal li ma gëm mooy que boo génnee di wax boo génnee di wax ñun ñu génn di wax yow génn nga dégg parce que li ngay wax lépp ci ay fen

amoo ngor ku cog wor ma ngor ngëm-ngëm dañ ci yow yow bàyyi ma yéene yow kenn waratu la traité te yow foofu lañ toll ak yow asalaamaaleykum